ñu dikkaat ci lu jëm ci àtteb euh, ki nga xam ne mooy ay Aida wala euh, euh, kii di Soxna Aida Mbacké te mu nekkoon ki nga xam ne moo taaloon borom këram bi euh, du Xaadim Njaay fële ca maris te fan yi ñu di leen ko wax àtte bi dañ koo dàqoon ni ki tey jii nag wax nañ ne dogal yi daanu na tëj nañ ko ñaar fukki ati kaso moom soxna Ayda Mbàkke mi ginnaaw bi mu defee jëf ji nga xam ne nee na ci wàllu firange donc la ko tegoon ginnaaw bi mu yëgee borom këram bii dafa am ndaw sumu takkum ñaareel fële ca diwaanu Italie du mu jotee message boobu ci téléphone am la ko laaj waa ji ne ko daal kii du sama coro ne ko moom sama app jigéen la d'ailleurs sax daf may xool comme ni muy xool bëtu doomam soxna Ayda Mbacke mi ne ginnaaw nag bi mu defee ay gëstoom ci Facebook bi ci la dem ba gis ne jëkkëram ji di xaar njaay def ko takkal ñaareel bi mu meree nag ba daanu sax malees ñu yóbbu ko ci benn clinique euh, au bord dafa mujj dikkaat ci kër gi bi mu dikkee mer la def rek daal di eh, sotti essence ci kawam taal eh, mu daal eh, ñàkk bakkanam moom Xaadi Njaay mi ci anam boo xam ne bu doy waar la police teg ko loxo nag boobu ba tey ñuy dafay enquête ci moom di fàtte ne sax ne juge bi mu ngi demandé woon fukki at ak juróom waaye finalement daal kii chambre criminelle de Dakar condamné na ko ñaar fukki ati kaso xeexoo bii mu ngi amoon ci mois de novembre ni ki weer wi en 2018 kenn fàttewu ko boobu ak léegi muy lu doy